bu ñu ci gagné dañuy am possibilité génn euh, bu ñu marché sax am na possibilité génn wax Sénégal mën na qualifier parce que toujours le Sénégal a son destin Colombie matcham bi mujjee moom mooy nekk ci dafa bokk ci meilleur matcham. Sénégal matcham bi mujjee nekk ci matcham bi mu nekk gën a bon maintenant boo. man je dis ne Pologne jour Pologne dafa ñëw taxaw seetaan te li ñoom dóor ko 3 Sénégal boo xoolee bi mu moom dafa contre Japon dafa xawoon sous-estimer son adversaire ni mu waroon jëlee match bi série jëlee ko une série boo xoolee comme baat na premier match du Sénégal dafa gis son deuxième match te je sais que seen joxee ni ñu war a joxe dañ ciy génn parce que équipe bi ñu ngi en place parce que li tax équipe ñu ngi en place boo xoolee on a joué deux matchs on a marqué quatre boo xoolee suñu globérage on a marqué quatre buts encaissé deux bi su fekkee ne dañu teg football normal ñun am nañu des joueurs assez talentueux yi nga xam war match bi dañ ci war a génn dañ ci mën a génn facilement Sénégal je dis que même bu amagul onze am na dix parce que li tax ma ne am na dix premier match onze éléments yi mu benn élément la ci donc am na say dix tuuti peut être benn réaménagement bi tuuti la def rek parce que li mu woon keroog rek man je pense que foofu la ñu war a jëlaat change au niveau de la CAN ñu jéem a xool soit dañuy adapté le système 4 4 te mën naa rapport ak parce que aussi match bi duñ ñëw jël ko asaaloo ko ñu fi mu toll nii ñun un point lañ soxla ci match bi donc ça tëb dem di adversaire maintenant bi mu ñëwee si il faut que am benn sérénité toog observer match bi. waaw il faut que ñu gën a concentré davantage jouer comme ni ñu jouer suñu premier match kenn ku nekk mu nekk ci kenn ku nekk am détermination parce que bi ku ku wax dëgg coupe du monde bi euh, problème de gëm. gars yi ñoom ñëpp pratiquement ñu équipe yëpp ñoom ñoo tolloo doole moo tax boo xoolee équipe yi nga xam ne ñoom lañ gëm espérer ci équipe yu mag yi fi mu lañu commencé tomber. dañ commencé sombre boo xoolee Argentine démb di sës di génn ci match yi donc ça veut dire que mënoon na ci ñàkk parce que wax naan am na benn penalty ci coupe du monde maintenant bëgg-bëgg bi ak peut-être que yenn erreur yu ndaw ngay def rek parce que c'est le haut yenn erreur yu du day sa sa sa paye cher quoi